mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal C3S ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa yu ñu jubluwaatee ci wàllu liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أنت بنعمة ربك بمجنون mbokki internet yi di leen waxaat asalaamaaleykum ci beneen fait de l' actualité de la semaine mooy vaccin yi di ne cobbay mbiru Ousmane Sonko mi sax ak euh, Adji Sarr bi tax na ñu bëri euh, fàtte ko sax mente mbas maa ngi fi de mi ngi faat nit ñi di rey nit ñi euh, nit ñi nañuy jug kon bu baax a baax mobiliser wu dem ñàkku ji bu baax a baax wante dama si wax leen rek wax dëgg yàlla comme nit ñi ñoo doon wax ne président nañ njëkk a ñàkku donte ministre ma ko ñëkk a ñëkk wante ñàkku na ah nañ suivre exemple des membres de son gouvernement également se son vaccinés mais leen rek moo ci problème bi ci vaccin yi mooy nañu bàyyiwaat xel bu baax le débat scientifique walaataa ma ñëw ci le débat scientifique sax moom président Macky Sall il doit revoir sa stratégie de communication parce que wax dëgg yàlla président nag. lan moo tax lan moo tax sénégalais yi nattal la budget ci seeni i impôt ci seen lépp loo xam te ni ci la ñuy yaakaar ñaq baadoole yi nit ñi sonn taxi yi yeneen ak yeneen di la fay weer wutal la ku lay garde wutal la foo dëkk wutal la yëpp président wax dëgg yàlla pale bi dañ la ko dénk rek nga ne yow bu ñu bëggul vaccin nga jox ko ñeneen ngay joxe loo moom nag wax dëgg yàlla président monsieur le président moom moo vaccin yi sénégalais yi ñoo si seenu xaalis 2,2 milliards yi ci nga ko jëndee 200 000 doses yi kon pour man li nga waroon a wax kay mooy comment sensibiliser les populations à ce ay aillent se vacciner loolu mooy l'importance te loolu da ko waroon a wax sa ministre santé ñu fexe ba. boole ci les leaders d'opinion les bàjjanu gox yeeg xalifa yéeg mbooleem les porte de voix de message ñu véhiculer le message à ce que politique de campagne de désinformation bi amoon mën a jeex wala mu wàññeeku pour que les sénégalais savent hmm, euh, euh, sache bokk li nga xamante moom moo di importance su yi les vaccins du ñu ay médecins médecins yi rek ñooñu ci mën a guider on a vu docteur Bousso professeur Seydi qui se sont vaccinés nee nañ bu baax a baax vaccin yi amul euh, inefficacité am na njariñ ñoom moom lu ñu wax dinañ ko dégg mais leen rek laa ci bañ nañu bañ def le discours politique vole discours politique bàyyi volet communicatif bi discours scientifique bi parce que si le discours politique se met au-dessus du discours scientifique ça poserait un problème une équation parce que tout simplement ñi ci war a wax ñoo ci war a wax Sénégal nag moo baaxoo bu match amee ñu am 16000 cotes 16 de cotes comme léegi Sénégal population bi selon ANSDS 16 millions la bu lu am ñu am 16000 de spécialistes ñi ci war a wax nag nañ ci wax ci teel. parce que mosuñ leen dégg ñuy wax gëj na leen dégg ci dépp première vague ba ay ñoom professeur Seydi bi wax ba rek dem ay docteur Bousso li ñuy dégg mooy ci junni ñu. testé nangam si junni ñu testé nangam ay chiffres la ñuy dégg maintenant nag on doit dépasser ces chiffres et parler exactement li am ci vaccin yi ak ni ñu koy utiliser Sénégal yi mën koo jëfandikoo parce que ku nekk xam ne feebar bu amee moom médecins yi rek lañ ci yaakaar te ñoom ñoo yore le dernier mot à dire donc ñoom lañ ci yaakaar kon nañu ñu ci guider ñaax ñu ci wax ñu ci ak tamit vaccin yi yeneen ñax day ñëw ndax compatible nag ak suñu immunité. ndax dañ mën a boole yi ndax tamit dose yi ñu wax ñaari dose yi ndax tamit boo ne dangay jël ñaari dose kiy jël benn dose yi yemul jëliwut loolu tamit dama ci ñaax sénégalais yi nañ def suivi bi parce que boo jëlee benn dose dem toog tamit du la jëriñ dara nañ jël ñaari dose waaye leen nag laa ci tiit bu dee nañ na ñàkki boo ko defee tamit mënoo garanti ne doo amaan mbas mi moo tax xel mi ngi tey parce que ku nekk xam ne hépatite B boo vacciné woon jeex na mais vaccin boo xam ne nañ boo ko jëlee léerewuñ garanti wuñ ne doo doo amaat feebar bi loolu si yàpp mais ñi ci mën a leeral mooy les scientifiques ak les médecins mais ñi nga xam ne ñi son sont spécialistes ci dans ce domaine il est important nag ñu gën ko leeral te Sénégal yi tamit gën a jox cër waa kër docteur respecté ndénkaan yi takk masque yi day raxasu ba set parce que tamit ku jaaxle hôpital rek nga jëm te boo demee hôpital docteur rek nga fekk kon seen i ndénkaane lu mat a bàyyi xel